internet le Dakar waa 221 nuyu na leen di leen ziar da leen ak jàmm ñoo ngi fii nekk ci Liberté 6 boo leen ñu fi gisee xam ne euh, ñoo ngi ci wàccaayu tabaski war a ñëw fii laaj ñi nga xam ne ñooy jaay euh, lan moo waral certain njëgu xar yi ndax xar dina am euh, ba ñëpp borom kër yëpp mën cee am maa ngi fii nekk ci Liberté 6 damay ànd ak Momadou sama caméraman ñu dugg ci biir laaj ki nga xam ne moom nañ fi fekk mbaye fay sama jigen tour bi. Moustapha Mbaye. papa wa daa waa daal Ndakaaru ñoo la seet si ñu nekk ci waccay tabaski daanaka euh, euh, deux semaines rek mo ci dess euh, ndax papa mën nañoo am xel bu dal ci xar dina borom kër yëpp dinañ ko am. góoma ko ren borom kër yëpp am ko. lu waral lo parce que misir gi nga xamni mo xarit fa la daan yombe yombatul. xar bo jëndee daaw 100000 150000 cent cinquante te yaa ngi koy jënd juroom fukk wala 200 kon xam nga xar mënu yomb ren. di leen wax ni daal ko yor njëg ñëwul jënd fi xar amul manqué na te seer na. papa ndax euh, aliment betaay bi nga xam ne muy muy ngooñ di xa euh, di ripaas ndax yokk na lu tax xar mën a seer. waaw parce que saako ngooñ léegi bu demee ba mille 6000 mille xar mënul yomb saako ripaas mille loolu mënul boole xar du yomb pour xar yu yomb il faut gouvernement bu jàpp leen dina defal xar saako ngooñ saako ngooñ 3000 saako ripaas francs pour nous, wàcce xar yi 100 000 am 4 000 tabaski mais fi toll am a tabaski. wax ngay na borom euh, fermeture frontière Mali Sénégal ndax tamit euh, problème ci problème que Mali bu fi toll problème bu mac, parce que dégg yi dara parce population Pikine dong at de moutons

yor 100000 francs mënul tabaski loolu day na waar sim réew baaxul sim réew. papa ñu gis ni euh, ren xarub yar moo gën a bari ci réew mi euh, ndax euh, mën nañoo xam ne dëkk bi dañoo delluwaat ci yarub xar. non xarub yar yi moom dafa cher parce que yaru xar ba mu ba mu màgg ba toll nu ko neex nga koy jaay 400000 ak trois parce mil yii ma yor nii amul ba si mën a jar 300000 te xar yar lan xam nga loolu dafa cher parce que li tax mu cher mooy dund gi moo yombul mais bu dund gi yomb na. xar yi du àgg 300000. parce que dañ wax fi sa prix xar ban mo fi gëna cher bi fi gëna cher 400000 amna fi gëna cher 400000 lay jar bi fi gëna cher deug deug deug 700000 moy bu wex bi so gëma ginaaw na après dañuy and ak Moustapha mu won waaw na len dem lol des na ci yeen bi moy jar ñaata 180. 180 waaw. ku mëna waxale tamit kën du ko 250. 250 la yam topp. 350. 350. waaw. papa bi 700000 nga waxoon waaw bii tolloo wuñ njëkk. bële da ko ëpp moo ko sut moo ko def lépp. papa bu ñu seetloo ci taxawaay day mel ni bii moo ëpp. non non non bii moo bële ëpp parce que bële daa sangoogul comme bii rek mais bële moo moo gën a gudd moo sut. Euh, mën nañoo xam euh, yow sa xar yi ban prix moo si gën a yomb. 150 000. 150 000. mënul ñàkk. apa lan ngay digal borom kër yi. nu génn rek jënd si xar benn yoon sinon duñu am. ku teelu ta jóg daa am doo am teelu la jóg am. waaw ku teel parce que nit ñaa ngi yor 100000 une semaine ñu ngi wër xaru 100000 amuñu ko. kon xaru 100000 daal amul ci dëkk xaru 100000 papa lay sama jigen kontansien si di sama kameraman di leen wax dem ñëwaat wàññiwul dara fii ak semaine ngeen dem ñëwaat xar yi gën a nu yaatal. Mamadou xam naa danga may topp ñu dugg ci biir euh, fekkaat fi ñi nga xam ne ay jaaykatu xar naan laajaat leen suñu question waaye dafa mel ni am na koo xam ne fekk nañ ko fi moom xam-xamam yenu na ci wàllum jaay xar dañuy dem rek poser ko suñuy question mu tontuñu. suñu mi ngi koy wax sànq mi ngi naan euh, gëmul borom. mëna am xal ndax loolu doonul tiitaange ba état mën ci tax waaw bu waxé loolu waaw mëna na tiital borom kër yi té borom kër yi mom bëgg na lu dal seen xel manam do wax lo xam day yob seen fit parce que jamono dafa naxari waye ñu ngi leen ñaan ñu yalla na yalla may xar waye dal wóorut ku ci yalla dimbali bo amé as lo xamanteni yor nga ko boko mëne mënee dem jëndé xar nga tél ko jëndé xar ñoo tegal ko sa njabot jaamoko ko parce que période yi ñu toll ni ku ne la mëna la garantir né xar day am waaw dina day wax daal dina wax daal safaan te instant yi moom doy na waar doy waar goo xamante ni xar yi métti na xont bi métti na transport xar métti na xar daal daraam yombul. mu mel ni aliment bétail da ciy joué lu bëree bëri bëri parce que munoo yor xar yoo xamante ne plus de vingt xar wala trente xar chaque jour ko jëfee saako la ñuy lekk te saako bi presque di jar ay dix huit mille wala seize mille nga war ko jox presque xar mais loolu boo calculer at bi yëpp balaa mu ñëw daanaka sax yow doo ci am dara condamné boo xamante ne la rek day am sax perte. waaw loolu moom da am quoi. Euh, lan ngeen di wax état. état bi nañ jàppale sénégalais yi parce que sénégalais yi ñu ngi seen ginnaaw te ñoom lañu yaakaar ginnaaw yàlla te jamono ñu toll nii état bi war na bàyyi xel askan mi bu baax a baax a baax ndax yarum xar dafa metti yarkatu xar yi defuñu dara de ak euh, temfenke yi defuñu dara ndax bu fekkoon lekk xar yomb lu waay am di nga am xar mais jël lekk xar yi def ko presque li ngay dundee yow nit ki sax. xar yi gën a kon mën naa ne ñoom responsabilité mu ngi seen loxo ñoom ñoo ko waral tey bu ñu jàppale woon askan wi ci côté xar yi heure bi yàpp du cher prix yàpp kilo 4000 francs loolu mu naa ne ñi ko fiy lekk léegi dañ leen di compter te loolu baaxul ci dëkk musiba la. day wala ni fem ci frontière bi am na ci lu mu ci joué. da cee joué lu bëree bëri bëri mu toll nii nag moom sénégalais yi moom dañ jàpp ne embargo boobu noonu moo leen gën a teg coono. waaw am nga xar. waaw waaw man maa ngi nii ci xar yi. <laughs> yow tànn nga sa bos ba pare. waaw am naa xar ba pare. wax ah, ah, man moom sama xar bi gëm naa ne moom. 200000. xanaa xaru yar lay doon. waaw xaru lay doon man moom. ñoo ngi sëñ bi nuyu na naa la soxna si. tur bi. Ndandi Fall. Eh, naan na ñu fekk la fii ci Liberté 6 ngay jaay xar ndax mën nañoo xam eh, njëkkute xar yi. waaw ñu ngi fii Liberté 6 jaay njëkkute xar yi moom benn instant seer na moom. ndax ñun ñëpp jaay ko la bu sañoon xar yi yomb maanaam yomb yomb xar yi si xont bi la dépendre quoi xont bee seer moo tax xar mënul yomb. Euh, muy mel ni prix denrées alimentaire da cee joué wàll muy mel ni ngooñ wala ripaas. waaw génn si bu baax a baax a baax ndax ngooñ bu demee dafa yokk ripaas dafa yokk moo tax xar moom ay saa mënul yomb. Euh, li mën nañoo xam euh, euh, fermeture frontière yi ñu gis Mali dañ koo tëj ba tax na dëkk bi xaru yar la loolu tamit day joué ci li nga xam ni dëkk bi mun ñëpp mën nañoo amandoo xar. waaw Mali moom bu ñëwul dana gën a métti ci Sénégal ndax xar yi fi nekk rek doyul quoi ndax boo xoolee suñu gétt bi xar yu bëri jaay nañ leen léegi ñu takk mor si zone yëpp jaay nañ leen xam nga lu dina nax nag ñu bare quoi képp ku ci xaar bu amul chance di nga tumpe quoi ndax Mali bu ñëwul rek Sénégal dina métti trop tabak seem quoi mel ni euh, Mali bu dikkul euh, ñu borom kër yëpp mënuñoo amandoo xar. ñëpp mënuñoo am ndax xar yi seer nañu borom kër yi seen loxo jotul seen ginnaaw dund bi seer na daal lépp lu état bi mën a def pour jàppale borom kër yi état bi war na ko def jàppale leen bu baax a baax a baax affaire na trop. yaa ngi koy wax euh, mu am na ñu bari jëndagum na mu mel ni daanaka xar ñi borom kër yi am na ñoo xam ni teel na ñoo jënd ngir waajal loolu mën a waajal. waaw am na ñu teel a jël seen matukaay moo ñu ñu teel a jënd ñi képp ku teerul jënd daal wóorul teel a jënd moo gën a dal xel bàyyi ba dernier moment soo da jóg dernier moment bu xar manqué day gën a métti si ñoom ndax xar yi dinañ gën a yokk gën a seer mën nañoo xam prix xar yi xar yi nga xam ni yéen ñan ñi yéen prix yi ñoo fi am waaw fi gën a yomb daal cent trente la man sama gétt daal sa gétt waaw mel ni fii fii cent trente moo fi gën a yomb cent trente ba huit cent mille am na fi huit cent mille euh, xam naa dañuy doxantu tuuti nga joxoñ ma bu nekk ak prix am bii 30 ban moo ci gën ser seer kon. bi gën a seer mi ngi gële 800000. bii nag bi ñaata. 100000. 100000 lan mooy différence. seen différence poids bi la bee moo ëpp bi. mais sooy gis. non bokkuñu xoolal xar beeg bi xoolal bële ak bii dañu wute nañ. xar ñaata mois lay am ba mën a toll nii. ans an et demi. lan ngeen di wax état. état mu jàppale gars mu jàppale jeunesse bi rek bëgg nañu liggéey. taam loo xam ne tamit bëgg nañ ko suba ñaanu ma ko yàlla xaw ma luy xew war nañu bàyyi xel tamit ñun borom xar yi xamul la gaa mbirum politique nañ ko teg fee ba tabax bi passé ñun loolu la ñuy ñaan quoi ndax dañoo jëm si mbirum produit eh, lépp liy yëngu-yëngu ñu ngi ñaan suñu autorités yi nañ teg lépp ci ba tabax ci passé ndax bi lu ci yàqu fii bari na trop xar yi dagg nañ te ñu ay jeunes lañ wut dañu def ay million suñu xar yi comme nag ñaanuñu yàlla nag suñu xar di yàqu suñu xaaj yi naax saay bu dee autorités yi jeunesse bi leen tax a jóg nañu xeetaloo jeunesse bi dañoo jóg pour liggéey bu ñu leen yàqal nañ bàyyi ba affaire yëpp jàll. yaa ko gisandoo ñoom ñi ngi def alerte ci li nga xam ne moo nar a am suba fi di manifestation boobu euh, ñuy wax yooyu jeunes ñu jàppale leen euh, te def lépp ci jàmm euh, ndax ñoo ngi jëm ci à deux semaines de la tabaski te bëgg na lépp jaar yoon xam naa mu Mamadou dañuy duggaat ci biir rek jéem a amaat kenn laajaat ko suñuy question. Euh, sëñ bi nuy na la. Euh, fay nañ len tour bi. Euh, Jibril fay Jibril fay fekk la fi nga xam ne Liberté 6 ñu fi jaay xar ci ñima ma jot a déglu ñoom kon luñ wax dañ nan prix denrées alimentaire mo ser ba xar yi day da ciy joué. waaw mom moom dëgg la mom euh prix repas yi ño ser ak aliment bi loolu nak ki nga xamante mom moy njitum rew mi di monsieur le président Macky Sall mom lañ ci artu ndax mom laata mi nek ci bopam rew mi. kilo euh, saako ripaas bu gënoon seer mu ngi doon jar cent beneen bi si doon jar 6000 moom nag ba mu faloo ba tey maanaam mu ngi defar réew mi lépp mais côté jur gi ñun al ñun dañ cee des parce que lii li ñu nekkee tey suñu way jur yi ñoo si nekkoon xamanteel bu ñu amoon ci ñoom ba dugg si bañ duggee ñun dañoo fekk aliment bi gaa yi yokku saako yi saako day dem ba jar 13000 tey saako aliment tey bi jar 13000 kilo bi di jar ay 400 nga bëgg ko xontee xar ren ba déwén nga bugg ko jaayee yenn prix yi yow da gaañu ba pare ñu ngi koy jaay dañuy gaañu te tey man damay jaay nit xar wala nag mu wan ma ginnaaw ma yërëm ko ndax lenn Sénégal dañuy xëy di yokk dund gi mais salaire nit ñi ba tey mënuñu ko yokk tey ku doon fayeeku daaw 100000 ren nga yokk dund bi ba pare ñun ñu yokk xar yi kooku du mën a jëndati xar amaana lu mu dajale woon ci ay trois mois 4 mois lay ñëw bu ko def si tabaski après mu nekkaat en perte tey ñu moom kër yi ba tey ñoom moom kër yi nañu état wu Sénégal gën a bàyyi xel ndax ñun ay ndaw lañ dëkk fii grand bëgguñu lu dul suñu réew suñu réew kese moo ñu intéressé tey lu ñu fi teg ci ay million bu buñ ko paasoon dem Espagne wala ñu dem feneen mais réew mi lañ bëgg a teddee réew mi lañ bëgg a tekkee

sëñ bi nuyu nan la. ñu ngi lay fay yaay booy. tur bi. mohammed dien mohammed dien ñu ñu dem ci tabaski daanaka deux semaines mo ci dess lan mo waral xerté xar. lan mo waral. xar mi seer xar yi seer. wa mais dund bi mo seer na quoi ni parce que amna ñu fi jaar daw jaar fi dawati jek mais par rapport ak ren parce que sa kuri mi ñu ci 18000 presque ngooñ 7000 francs boko amul doo def ko lolo tax dund bi seer. ne aliment bétail bi da cee ba njëgu xar yi. loo ko waral nag waaw. Euh, ñu ngi ñun jot a dégg fii ci dalal gi ñu ngi wax ni fermeture euh, fermeture frontière Mali bi tamit da cee joué. noo ñun loolu ragaluñ ko moom garaaw. ay yarkatu xar ngeen. waaw non yàlla moom moo fi nekk rek Mali bay boo ñu indi lu ñu am bu ñu fa bàyyi dara lu war a jar lu ne dana jar bu soobee yàlla. bu xar yar euh, bari na ci dëkk bi. waaw mais bari na nag dafa féete côté rek mais bari na quoi. amna ño xamanteni xaru yar lañuy wër am ño xamni ne coggal yi la wër ku nekk ak fi sa poste tollu rek. problème li bo leen bëggee mu neñ lan ngeen di wax ki nga xamni moy état. wa mais état bi liñ koy wax moy mu def limu wara def rek ndax paaka mom kenn du ko jitu ci mbaram ñom li leen war xam nañ ko dañu nekk ci leen neex rek mais nañ bàyyi xel askan bi nag quoi population bi nañ leen bàyyi xel bu baax a baax. jafe-jafe ngeen di am fii ci dalal bi. non amuñu fi benn jafe-jafe nag vraiment parce que fiñ ñu toll la courant bi mi ngi ñëw ndox bi mi ngi ñëw ci li ñu wax. si suba rek daje naa fekk koo xam ne mi ngi jël numéro téléphone yi ripaas bi dina ñëw à à chaque chaque at nag noonu lay demee at bi bu defee bu tabaski desee une semaine ci la ñuy door a ñëw joxe fi ñaari saaku ripaas après ku ne dem. yaa ngi koy tabaski des euh, deux semaines euh, ñu jëm ci euh, ñu ñuy wax xar dina manqué du manqué ndax yow lan nga ñu si mën a wax. non tabaski moom moog nawet ñooyam rek xiin taxul mu taw ñàkk xiin taxul mu taw loolu suñu borom la ajo yal nañu yàlla suturaal rek ba kenn ku ci nekk dugg ci pour liggéey yal na la suñu borom teg loxo. ok ngay wax ñi nga xam ni yéen a bokk fi di leen wax ni leen ñu jàpp too bàyyi rek comme ñun miis nañ ko adduna amul solo yàllaay jaay ñun jaay ñu yàllaay jaay mooy jënd sa xarit mi ngi wax yàgg nga ci jaay xar waaw yàgg naa ci nag waaw sa at nga ci tàmm xamante ne sax at ñu ngi fii fii la ñuy jaayee waa temps mu mel ne yarub xar dafa baax waaw baax na moom tàmm la rek amour la rek mais amul xaalis parce que xar moom vraiment boo ko jëndee mbote trente mille francs yor ko ba tabaski boo ko jaayee quatre cent mille jaay sa xaalis génnul parce que li muy lekk moo ëpp loolu xanaa xaalis bu dajee rek la ñuy wax. ngay wax ñi nga xam ne ñooy jënd si. waaw clients yi ñu ñëw rek kenn ku ci nekk sa wërsëg ngay jël rek ñii xaar Mali nag ñu xaar waa Mali waa ñun moom ñii ci terrain bi ragaluñu loolu. ñoo ngi lay jaajëfal. di leen jaajëfal yéen tamit di leen gërëm di leen sant ah, site bi bon donc fi mu yem ren yàlla na ko weesu daal ëllëg

Don't